bon match bi euh, sama jàngat peut-être dina nekk d'une part ci manquement manque manque d'effectif bi des fois suñu équipe onze type bi dañoo manqué mais du ma ci focaliser bu baax équipe nag dafa baax lu ñu naan colonne vertébrale tey loolu leen manqué dañoo manqué colonne vertébrale. maanaam suñu ak central ku mel ne Koulibaly. ki mën a relance ki dàq relance suñu équipe. amuñu ko ku mel ne Idrissa Gana Gueye moo dàq nekk moo nekk suñ porteur de balle suñ milieu terrain. mais kon gannaaw bu absent mi feeñ est ce que mënuñoo jël suñuy bagage ñibbi benn yoon parce que ne en tant que moo tax mu ne la colonne vertébrale bi ñetti nit kese lay composé mooy diggante axe bu baax bi milieu terrain bu baax bi ak attaquant bu baax bi ku mel ni Famara Diédhiou tey colonne vertébrale ko amoon man gëm naa ne am dara puisque transaction des fois mun na bañ a jaar ci àll yi kon tey bal yëpp ci àll la jaar amuñu benn bal booy seet bu jaar axe bi directement passe milieu terrain passe axe passe attaquant ci axe central bi amul. naka nga gisee euh, changement Aliou Cissé. kan ci changement Aliou Cissé. waaw changement Aliou Cissé bon tane na quoi tane na mun naa ne tane na puisque tey nu mu gàtt gàtt indil nañu sa apport défensif ci milieu terrain muy loppi boobu aussi in euh, Diao Baldé Keita mais aussi tardivement mën na ko teel a indi quoi waaw puisque tey moom moo nekkoon élément bu desoon ci attaque bi foofu. waaw parce que bi ñu gisee naataangoom yëpp presque xanaa dañoo ñëw ñu ko ci mel Ismaïla Sarr ak ak ak kii ñu ngay wax sax Crépin comme yaakaar naa ne ah, waroon na teel a mën a dugal ah, kii Diao Baldé pour mu mu ko bëgg waaw soo gisee loolu man fekk man man sax bi ma gisee onze départ bi kontaan naa si parce que Diao Baldé perte dañ ko jox keroog chance boo xam ne gëjoon na ko am mu passé à côté waaw Diao Baldé kat ku ko xamoon xam ne moom ndokuluwaar la Cristiano Ronaldo moo nekkoon idolam mais dafa wàcc jeu boobu mais gannaaw gis nga li ñu am bal arrêté ay coup franc mënuñu ko teg dugal en yi Sénégal bu teg bal coup franc ñëpp xam nañu du dugg du dem fenn loolu moo waral lool liggéey la wala. liggéey la liggéey la joueurs yi nag ñu xaar kër si mu ne jàngal tiir ñoom ñëpp am nañ club bu ñu demee seen club war nañ préparé woon ci loolu jour boo nee jour nga da war a préparé wu ci lépp surtout bal arrêté fu mu toll fu mu toll football mondial bal arrêté mooy gagné match. lan moo waral comme Sadio Mané da daan raté penalty gis ne ah, mi ngi ciy lu bari lan moo waral Sadio Mané waru moo jël initiative teg coup di ko dóor. waaw puisque moom ndeysaan lu yàlla dogal la fois passée bi ñu ko defee interview match bi jeexee moom dafa ne carrément dafa liggéeyaat ci penalty mais liggéeyul ci bal arrêté coup franc Sadio euh, fi mu toll ci niveau war na mën a yang coup <laughs> bon nii lañ mën a fubale rek ndax lii ah. li nga am rek ngay fubale dañoo manqué daf cee feeñ parce que joueurs yoo xamante ne fii lañ fii lañ fii lañ tasee fii lañ ñu ngi doog a joué benn benn benn benn kii benn yoon ci terrain lii nii lay demee mais nag niveau pro la ñu wax quoi tamit. ñun mën nañ leen baal peut-être ñu xamul mën nañ leen baal mais ñun ñu xam football wala di football mënuñu baal yenn joueurs yi sincèrement. tamit grand est-ce que euh, bu ne am na équipe tamit équipe bu dugg dafa war a def fooy fa la am n'est-ce pas. waaw mooy niveau pro ma la wax ko bay. pro nga dañ lay fay ay millions. am yoo xamante bu ñu ko imposé ti dafa Sénégal moo tollutul foofu léegi ay locaux lañ daan jël leen fay yenn somme yi ñiy négocier dee dañ leen fay ay millions seen xel war na dal du dañuy ñëw nekk si terrain bi di passe ay chute ay bal yoo ay loolu loolu man mi amateur bu signé wul fenn wala ma doon joueur avant man maa ko war a def mais pro pro la amateur amateur la. mais en tant que sénégalais yow naka nga gisee équipe Sénégal est-ce dal na xel. non xam nga football dafa waxul dëgg. Coumba dafa waxul dëgg d'une part man mënu maa wax ci côté dañ koy jëlee duñ ko jël loolu yàlla la. waaw a jéem a ah, dépassé mooy ci kaw sa équipe type day taxaw rek li ñu na taxaw ba pare a jugé mais tamit bu taxawee di tamit li ñu na dal na xel c'est football bi moo waxul dëgg benn instant ci kaw lenn mooy da ngay ñëw départ défaite ñëw finalu ñëw départ victoire ñëw toog naka nga gisee euh, changement wu Aliou Cissé yi. waaw xam nga changement yi baax na. changement yi baax na waaw baax na baax na d'une part baax na parce que gars yi du ñu xam nag parce que benn instant nga andi benn défensif mu taxaw dimbali la que Koyate jël na zone te foofu tamit loolu baax na loolu daa ko man garaaw man. yaa xamoon ne Ibrahima Mbaye doxul quoi waruloo mën a génn. non du question doxul du question doxul man góoma loolu ci football ay ma waa pression la dafa am mais du du question doxul man góoma loolu non non mais xam ne tamit football Coupe d'Afrique ah, affaire de guerrier la nañ falal nañ bàyyi caaxaan yi. yaakaar lu ñu andi deuxième mi-temps bi bu ñu ko andi woon premier mi-temps bi Guinée du jël. gis nga affaire yi nañ ko wax te dëgg ñun sénégalais dañoo bëgg ñun dañoo bëgg bal bi nay daw te ñemewuñ ñun sénégalais gis nga sénégalais dañ naan sénégalais di fubal te bu ñu passé góol bi gis ñu toog di seetaan ñëppay tiit ñun dañoo suñu làmmiñ na dañoo mën a côté boobu ban arrêté yi nga xam ne dañ koy jël di ko sànni te yi nga xam ne dañ ko war di marqué loolu waa loolu pourquoi Sénégal bu tegee bal arrêté bu jegee sax sénégalais yi dañ naan ah bal bi da dugg waaw comme man dama jaar ci fubal wallahi ñii nii dàqu ñu ma fubal a billahi wallahi ñii gënuñu ma doon guerrier dàqu ñu ma fubal mais dama ne am loo xam ne dañ koy travailler dañ koy ku yaate nañ doon deuxième poto di ko xaar la njool yi nañu xaar deuxième poto bal na ñëw deuxième poto ñu gàtt xoolal loolu li ñuy travailler rek am benn biu mu jeex mais nag xaw ma man man daal comprendre ma même jour yi dañuy waxtaan seen biir ku yaate man euh, cent un mètre quatre-vingt-dix la naa dem xaar deuxième poto du ma bokk mukk keneen man daal xam-xam yow ñàkk xam-xam weesuwul yow am nga droit def cinq changement yow lan lan mooy ndey bala nga def changement faaw temps dem cent dix mille man laa bëgg xam lan laa bëgg loolu laa bëgg xam wallaahi si sa amul xam-xam barke yàlla bu dee lii la yaakaar yàlla xam na ne xoolal bu ngeen ne pour sax nañ sant yàlla. mais mais mais mais est-ce que euh, équipe Guinée bi war nañoo mënoon tenir en échec. ak pour ko dóor lu bari lan mooy Mambaba Thiam yow amoo milieu terrain bu mën football football bu rafet doo jël nga teg ko mu nga ñu management léegi loo leen woowee ay Pape ay Pape Gueye nga jël leen teg leen si banc bi léegi da leen a teg si banc ba kan bi jeex wala Pape Matar Sarr kon li muy ñëwee léegi. mais mais mais Ibrahima Mbaye nga yaakaar warul woon. wax ji boroñ du fubal Ibrahima Mbaye dara Bouna Sarr Bouna Sarr nga jël ko teg ko latéral nga jël nga jël Bouna Sarr teg ko latéral mu fubal xoolal nga jël Mamba Badiane day toog baa Famara Diallo léegi ko woowee léegi xaaral attaque à pointe yàlla dama la déggee sax maam li ay li nga gis Sénégal dalul xel. bal bi dañ koy teg ñu football nga dugaloo ñu nambalis mel ni mu téye bal bi di passe ñuy xeex lum ñaa dara ku taxaw si milieu leen si mën a am na marqué nañ benn point mais nag am na ay erreurs yu nekk si biir xëy na dañ si liggéeyaat mais nag man moom meruma joueur yi man moom toujours Cissé rek si wàllu changement si wàllu classement yëpp foofu moom yenn saa yi day xaw a def yenn erreur yi trop mais nag yi ba léegi jukkee gaynde ji day xaw a des dafa des parce que li ma gis tey gaynde euh, kii Guinée moo gën a am xadar googu sax xaw ma lan moo xew nag. mais naka gisee maanaam équipe bi nga xamante ni Sénégal nee na moom équipe bu mag la yaakaaroon na tey jii même bu ñu andi woon équipe B bi sax war na mën a gagné Guinée je pense. c'est normal loolu moom moo tax Cissé mënuñ kaa wax lu bëri euh, parce que li nga màngali si ay éléments xam nañ parce que gars yi damay dégg ñaan euh, bu ñu wax naan euh, daa am ñëw Covid il faut ñu wax parce que ñi Covid bu ñu fi nekkoon ñii duñ fubal kon loolu leen mën a wax. mais est-ce que tamit ñi Covid euh, maam yi ne maam bi ñoo woon gën a wane pour pour gën a mën a am place que ñu mu demee nii. waa loolu it c'est normal parce que war nañ a wut xëccoo place en tant que yow pour sensé changement kii moo la ñëw si équipe bi war ngaa joxe wala wane loo xam ne. dalay wóor na la tey duñ jooy ki ki manqué. la nga gis ne tey instant yi bi ñu ko defee par rapport ak match yi ñëw nañ ci génn. luñ déparé deuxième mi-temps ñoom liñ déparé deuxième mi-temps moom attaquant yi moom foofu rek euh, moo xaw a des quoi pour marqué bii bi mais football bi deuxième mi-temps moom am naa si kontaan.